اكتب لمن أحب وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم يا ربي اجعل المريدين معا في حسنك الحصين والشمل اجمعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه وأسنى خدمه ومن والاه Euh, mbokk yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di nuyu bokki alxadimiya di leen sant bu baax di leen ndokkeel ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy taxaw ci diine ji ci yoon wi jamono ju nekk euh, rawatina ci weeru koor wi ñu génn ak it lu mel ne bis bi ñu dëgmal muy juróomeelu fan ci weeru shawaal nga xam ne day fàttali ab euh, dat bu am solo ci yoonu murit ndax xam nañ ne Sëriñ Tuubaa Cheikhul Xadim radiallahu anhu wa ardaahu wa nafaana bi ca Mauritanie ci atum ak Sachin muy mille trois cent vingt et un nekk ci biir atum mille neuf cent trois xaj na wala ci cat la ci la jote woon al wirdu maxuuz min allahi bi wasitati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam jële ko ci boroomam bisub juróomeelu fan yooyu ci weeru sawaal muy weeru kori ci la ko njëkk a génne joxe ko ki mu ko njëkkoon a jox mu Cheikh Ahmadou ibnu ci la ko joxoon ba moom Cheikh Ahmadou ibnu Hasan mu taarixaloon ko ci xasiida gum taalifoon ci wérdu wi gannaaw bi it mu tuddaat ko ci mbi euh, téere bi nga xam ne taarif na ko ci wérdu Maxuus muy dalilu man rama dalil kon dat la boo ama am solo boo xam ne saa yu dikkee ñi ko xam ñëpp daañ ko fàttaliku ndax jëmmal na lu rëy rëy rëy ci yoon wi doon loo xam ne itam li muy jëmmal lu rëy la ci Sëñ Tuubaa lu rëy la lool ci Sëñ Tuubaa loo xam ne bari na fu ko junj ci ay mbindam bari na fu mu ko wax sax wax ju leer ci ay mbindam ci xéewal goog ko suñ boroom jox muy wir du boppam muy loo xam ne naka jekk daan nañ ko wax ne euh, xaj na ñàkk koo xam moo tax léeg-léeg ñu di ko xaw ñu bañ ko ñu ñu jo ko daal léeg-léeg ni ko war a yëge ndax buñ xamee li muy firi loolu lu rëy la loo xam ne lu màgg a màgg a màgg la loo xam ne lu ni màggee yombut yombut a dégg yombut a gis ndax sëriñ bi radiyallahu anhu daa feeñ ci njaboot gu cosaanu ci diine ak xam-xam muy askanu mbàkkeek bu soobee ak aafe gi ko meññi sun boroom dogal muy ku teel a bëgg lu baax teel koo xeeñtu mu yitteem mu def ci yitteem ci wet yëpp ba ci njëlbeenam waajuram sëñ Mor Anta Sali anhu moo ko njëkk al jox alwirdul xaadiri wi nga xam ne moom lañ jële woon ci waa kër Cheikh Sidi El Kabir ñu jële ko ci waa kër Cheikh Sidi Muxtaar Kunti seenu càlla la wooye wooye ba ci Cheikh Abdou Xaadir Jilaan anhu sëriñ bi yor wirdu woowa jëfandikoo ko at yu bari sonn ca coono bu rëy bu ne dem ci fu di ca wut ay secret ki mbóot ak lu ko cay dolli am ca yaakaar jam ca am dox ca diir bu yàgg ba dox ca ay jéego yu sori ba am ca ay maqama yu kawe yoo xam ne yombutoon ñu gis ku ko am ci jamonoom surtout ndax dem na ba yegg ci ca mujjam gis na Cheikh Abdou Khadre Jeylaani jaxaran mu joxal ko boppam werdu wi loolu lu loo xam ne yombutu dégg waaye ànd ak loolu lépp ci bëggam lu baax ak xemmeem lu baax ak di ko ci lu ne demoon na ba yegg ci dajale yeneen i xeeti wérdu sax yu bokkut ak woowu dolli ko ca muy alwérdu chadali ak alwérdu tijaan yi doon den jëfandikoo ci jenn jamono loolu sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana nett na ko ci annub al Ighnaaul Adim ki ko wax sëñ beeg ko waxal boppam direct wax ne ci njëlbeenam bu masaana toog waxtu wérdu day jëfandikoo ñetti wérdu yëpp doog a jóg dellu ci yitteem ci diggante boobu itam bi mu demee ba nga xam ne waxal na boppam wax jooju nga xam ne sëñ Basiiru nettali na ko te sëñ Tuubaa jëmam bindal ko boppam te yax ba ci sëriñ bi benn sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana indi na ko ci Irwa un Nadim indiwaat na ko itam ci Ignaawul Adim boobu may wax sëñ Basiiru itam nettali na ko ci Minaanul Baaxil Xadim loolu muy wax sëñ Tuubaa ju wér joo xam moo ko bind waxal ko boppam wax ne bi mu demee ba nga xam ne nag dem na ba lam ca doon wut amu ko ca ca la di yokki yitteem aj yitteem ci akuk ajoom ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam dëgg malal ko boppam di ko tërbiyaal boppam ba mu wax ca lam ca wax lépp wax ne loola moo waral sax amatut benn sëriñ bu mu ajooti ci kaw suuf ci noonu ma ko waxee ci beneen leetar euh, boo xam ne sëñ Basiiru nettal na ko ci meneen baaxal xadim mu doon wax ak kenn ci waa seex Cheikh Sidiya ci ab xissa bu xam xaj na jëru dugg day guddal waaye niki noonu Euh, sëriñ bi bi tontul ko ba fa ab naaru Mauritanie bu ko doon laaj te sëñ ma Lamin Jóob Dagana teewe ko ne ba mu koo laajee lu tax nga ma gis nga mel da ngay tudd ak Cheikh Sidiya mel da ngay war ne ñooy see sëriñ mu ne ko loola day du woon lenn lu may boobu damaa mel ne silmaxa suy palamtu aw yoon comme dégg am ci yow yaakaar jox la loxoom waaye ba mu demee ba xam ne nag lam bëggoon lépp mënu koo amee foofa ba suñ borom dogal njàccaar lu mag li mu yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dégg malal ma boppam di ma tërbiyaal boppam di ma tarqiyal boppam ci la ñooñu ñëpp nag ci la tàggoog ñoom maanaam tàggook ñoom waxin la mooy tàggoog ajootuma ci ñoom ajug doon ay sëriñ ki i taalibe waaye léegi yonent bi aleyhi salaatu wa mooy sama sëriñ te leeral ko ca lettre ba wax ne nag ginnaaw tey araam na mooy ajooti ci kaw suuf ci kenn ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi fekk lu ko jiitu itam mu doon ko ñaan boroomam mu jox ko yëfi boppam bi mu demee ci géej gi sëriñ bi bindal boppam nettali ne Seydina Jibril dikkal na ko ci géej gi jël ci moom ndigal yi mu yoroon yépp ba mu jëlee ndigal ya nee na dellu si waatal ko ko jaare ko ci yonent bi salaam lu jiitu loolu dikkaat na ci moom dikkaat goo xam ne daa jaar ci loxo yi sëriñ sax xam ñoo ko yoroon lu jiitu mooy Cheikh Abdou Khadir Jeylaani ci wërdu Tija Xaadiri Cheikh Abul Hasan Chadiri ci wërdu Chadiri Cheikh Ahmad Tijaani ci wërdu Tijaan gannaaw bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam dikkaatal ko boppam joxal ko ko boppam ñetti wërdu yooyu yëpp ndax yooyu itam lu ma taxam la ñu xam ne wér di tariqa yi ak tariqa bu mën a doon ci tariqa yu wér yëpp. wird yi dañ koy tudde seeni i borom ngir rek jaar gam jaar ci seen loxo waaye seeni i borom ña ñuy tudde seeni i borom moomuñ ko ci dëgg-dëgg wird yi yonente bi alayhi salatu moo ko moom yonente bi alayhi salatu wasalaam nag gannaaw ko moom sa alal sañ nga caa soppandiku nu mu la soobe moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam joxoon wird sàngam jë jëmm sàngam jamono sàngam amul lenn luy tere ne mënul koo dem ba jamono sàngam mu joxaat ko keneen te mat naa xam ne it wird yi itam du du lu matériel loo xam ne day mel ne micro bi nga xam ne bu ma ko moomoon may la ko amatuma ko beneen micro nag man naa ko waaye bii moom amatuma ko faw bu ma ko bëggee jëlaat may ko keneen dama koy nangu boog doo ko man may keneen wala mu wut beneen may keneen waaye jëm micro bi moom benn la wér di yi demee wut noonu wér di yi moom du lu matériel loo xam ne boo ko joxee mënatoo ko joxewaat boo ko doon misaal da nga naan mel ne xam-xam yow mi jàng ba am xam-xam boo dajale ci sa bopp yàlla may la ko xéewaleel la ko xam-xam bi ngay jël di ko waat di ko jàngalaat ay nit doonu ne saa yoo ko joxee nit ba mu xam ko danga koy ñàkk waaye ni nga koy joxee nit mu xam ko noonu nga koy joxewaat ñeneen joxaat ko yeneen génération muy wéy te du tax nga ñàkk ko mën naa am sax la nga amoon day dolli ko kon moo tax euh, ñi am déggin woowu jàpp ne mel ne daal bu ko xasee jox kenn day mel ne mënatu jox keneen loolu amul leen lu ko tegtal amul leen lu ko firndeel teyit nag loolu lu yàgg la am na ci ñoom nit yàlla ci seen biir xaj na li ma ci seetlu mooy jagle gi sëñ bi am moom laa mus sa xam li ma ci seetlu mooy boo demee ci jawahirul maani yi Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu ci nattalib Seydina Ali Harazim Barada nattal na ca ne alxisbu sayfi dañ xam ne lu yàgg la loo xam ne jiitu na bu yàgg sayfi ca yëfi Sëñ Abdul Xaadir Jilaani lu yàgg la wax ne Euh, yonente bi alayhi salaatu salaam moo ko joxaatal boppam te loolu ku na xam ne lu jiir si amati jaan ay siècle yu bari la waaye loolu kenn amul sañ-sañu weddi ko ndax yonente bi alayhi salaatu salaam lépp ci loxoom la nekk waaye noonu nga xamee ne kenn amul sañ-sañu ko weddi ko itam noonu la ñuy xamee ne it kenn wurta mën a am sañ-sañu bu weddi bu sëñ Tuubaa ne yonente bi alayhi salaatu moo ko joxaat wérdu qaadir yi ak wérdu tijaan yi ak wérdu chaadil yi kenn mënta am sañ-sañu weddi ko lu may koo xam ne ak weddeem da koo teg ci bakkanam rek wala leneen waaye ci xam-xam moom mënoo am firnde ju ko mën a weddi euh, sëriñ bii laata mu ciy jot mu doon ko ñaan boroomam di ko wax di ko di ko junj bi mu demee ba mu jege mu di ko junj di ko wax ay nit di ko junj ci ay wax ba suñ borom dogal ci mujj koor googu ci atum ak chachin moomu mu gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam jahran te fekk gis na yonent bi alayhi salaatu wasalaam jahran lu ko jiitu lu kenn xamul nu mu toll lu kenn xamul nu mu toll te taxagutoon mu jox ko ko waaye mu dikkal ko ci anam googu jox ko wirdu boppam woo xam ne moom wirdoo ma ndax ci li nga xam ci histoire tasawuf masaayix yi fi ma sa jaar yëpp yor ay tariqa benn tariqa boo ci mën a dem gis ko mu bokk bii muy benn amut kon wirda ma te loolu gëstu nañ ci ay gëstu yu ñu may ñu war caa mën a wax dara waaye ku ñu sut fuuf ci xam-xam ci yàlla ci lépp muy Cheikh Maodo li mu jëb daga ne wax na ko ci raw na dim wax ne ne kenn mësu koo yor lu ko jiitu ab wér la woo xam ne kenn mësu koo yor lu jiitu benn sëriñ mësu koo yor lu ko jiitu kon wér boppam la te sëñ Basiiru it boo demee ca Minanul Baaxil Xadim junj na ca luy tegtale loolu sëñ Basiiru sax daf caa dem ba wane ne jotug wér du Maaxuus bi ci la sëriñ bi amee tariixa boppam bu beru sëñ Basiiru la la wax maanaam sëriñ bi ba bi muy jot wérdu bi amagut tariixa boppam bu beru amagu ko waaye lu ko jiitu dafa nekkoon ci tariixa ba ni demee lu jiitu muy dem ci géej gi la ci la ci la ci la ci la ci la tàqalikook tarixa ba lu jiitu muy dem ci géej gi lu toll ci ñaari at euh, akus lëf bi mu demee ci géej gi diggante boobu ba tey tarixa bi doonagut tarixa bu bu beru donte ne mi ngi jële ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam wird ya ko jiitu woon waaye wird la yoo xam ne daa am ñu ko yoroon lu jiitu sëñ Basiiru noonu la leerale wane ne maanaam wird wii nga xam ne ci la yëf amee nag beruk boppam ndax dafa doon wirdu woo xam ne dafa am euh, càllala gu jóge ci Yonent bi alayhi salaam direct muy sëriñ bi ba noppi itam am loo xam ne dafa am euh, tartiibu boppam tartiib xaas nga xam ne dëgg la la ca nekk ci ay sikkar ci tur yàlla ya ca nekk ñu koy sikkar boo demee ci yeneen wirdu yi mën ko caa fekk danga ko ci fekk sax wala da nga ci fekk yenn ci yooye waaye la ko wutale mooy lim yi ak toftale gi loolu mooy leen di wutale ndax tariixa yi loolu bokk na ci leen di wutale Euh, muy lim yi ak toftale gi loolu nag sëñ Bachir wax na ci la sëriñ bi amee euh, tarixa boppam boo xam ne bu beru la bu beru la kon loolu lu rëy rëy la rawat na bu ñu xamee tarixa li mu jëmmal ci ci ngirum yoonu yàlla ndax euh, ci wàlluk yoonu yàlla moom mboolem li niru xeetu ay ay ay organisation ki ak euh, lu ni mel euh, diine moo ci féete kaw diine bu diine weesoo la ca féetewaat kaw mooy tariqa tariqa moo ci féete kaw tariqa moo féete kaw sax madahib yi ñu xam ci ay madahib fiqhiya kalaamiya nang yooyu tariqa moo ko féete kaw ci wàllug spiritualité ak la ca nekk ci mbóot moo ko féete kaw foofu lu kawee kawe kawe la loo xam ne ay benn nat la ko sun boroom jox ci xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam yëpp ak liñ yaatu yaatu yaatu kon loolu lu rëy la ñu gis ne itam ci askan wi mu bokk ak gox bi mu bokk muy ci Afrique soowu jant xamuñ ci liñ xamagun kenn ci histoire koo xam ne xam nañ ne kii kat mas naa am tariqa suufiya lu jur Cheikhul Xadim boo demee ci Minanul Baaxil Xadim sëñ Basiru bi mi leeral leeral yooyu ma doon junj léegi wax na ci ba wax ne ku mel ne Cheikh Sidi Muxtaar Kunti radiyallahu anhu nga xam ne kilifa la gu mag a mag a mag a mag donc ko Sëriñ Tuubaa fonkoon te naw ko di ko tudd ay di ko tuddee tur yu kawe ci ko Jinaan ak ci yenn ci mbindam sëñ Basiir wax ne Cheikh Sidi Muxtaar ak fi mu yeggoon fépp ba yegg ci doon jëlee ci Yonent bi aleyhi salaatu wa salaam direct sax waaye taxutoon nag mu am euh, limi boppam ak toftalik boppam loolu moo waral Cheikh Sidi Muxtaar ba tey kàngam la ca kàngami ak tariqa al qadiriya waaye doonul ku yor tariqa boppam boo xam ne bu beru la bu ñuy wax ak loolu euh, majaas la waaye doonul xaqiqa boo xam ne day mel ne day tariqa mustaqil la déedéet ndax loolu it mën naa xam ndax tariqa dafa am ñaar daa am tariqa boo xam ne dañ koy woowee tariqa mu nekk tariqa mustaqil la bu beru boo xam ne bu beru la jóge ci yonent bi alayhi salaam directement am tariqa yu ñu tudde tariqa te fekk ci dëgg-dëgg duñ tariqa dëgg-dëgg waaye maanaam duñ duñ duñ ab buut wala nga ne duñ ab dàttub garab waaye ab ab bànqaas lañ waaw misaal tariq xaadiriya boo ko waxee mooy cosaan loole jóge ci Cheikh Abdou Khadre Jilani waaye diirub siècle yi mu jaar dafa am ay banqaas yu bare bare bare bare bare bëri am na al alkuntiya ñu cosaanale ko Cheikh Sidi Muxtaar Kunti moom ak moom am na alfadiliya ñu cosaanale ko askanale ko Cheikh Mawal Fadilul Dumamin am na albutchichiya ca côté Maroc ak euh, réew yu yooyu am na yeneen ak yeneen ak yeneen yu bare bare bare bare bare la yu yaatu niki noonu tariqa chadili yi itam noonu la mel cosaan li moom mooy cosaan li waaye nag am na ay bànqaas yu bari yoo xam ne da ngay dégg ñu naan la euh, a tariqa al al al al euh, darqawiya ca côté Maroc chad bànqaas la ci chadiliya dégg ñu naan la belqaidiya wala ñu naan hébriya wala ñu ne euh, rajabiya wala yu mel noonu yëpp te teewul benn cosaan li benn la muy chadiliya waaye ay banqaas la wala lu mel ne tariqa tijaaniya misaal Cheikh Ahmad Tijaani radiallahu anhu ci moom la yàlla feeñal tariqa bi mooy boroom tariqa bi waaye euh, sun borom ci barkeem ak yaatalam feeñal na ci loxol Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu miy dëkk ci réew mi di sénégalais euh, alfayda tijaaniya muy lu am solo lu rëy rëy waaye taxul mu firi ne day mel na lu beru ci biir tariixam wala mel na day doon tariixa bu bees bu beru déedéet waaye cosaanu tariixa bi dëgg mooy ab tariixa ya kon euh, loolu rek laa bëgg a leeral noonu bu doon ci ñun ñi ci nii ñuy waxe mu ngi mel ne nga ne woon rek waa taalibey maam Thierno Birahim taalibey maam Cheikh Anta taalibey Cheikh Ibrahima Fall taalibey Cheikh Issa Diène loolu ay bànqaas lañ waaye benn kenn gu mag gi moom benn la muy yoonu murit muy Sëñ Tuubaa ñëpp ci moom la ñu aju euh, kër gu ci nekk nag mën nañoo am seen yenn ndolle ni bopp yu ñu dolli di ko def waaye bànqaas mag bi nga xam ne mooy cosaan li ñu bokk moom ñëpp koy bokk ñëpp bokk nuñ koy jëfandikoo kon loolu rek laa ci bëggoon leeral euh, loolu lépp nag yàlla dogal na ne ci jamono jooju la ko sëriñ bi génne joxe ko muy ci datub juróomeelu fan ci weeru sawaal woowu sun boroom defit euh, mu doon loo xam ne ren ji itam bu ma juumut day day dëppook dat ba ndax dafa mel ne ren itam ajjuma may nekk juróomeelu fan ci weeru kori day mel ne te cheikh si cheikh ahmad ibnu ahmad cheikh ca wayam wayit ba mu cay tudd dafa waxoon ne juróomeelu fan ci weeru shawwal la woon doonoon bisub ajjuma loolu la waxoon daa num woon euh, nu mu ko waxeeti euh, abrazahu ama shahidna karama xaamisa shawalin xafifan salima euh, wax ne wax ba tudd na yowmul aruba yowmul aruba mooy bisub ajjuma loolu la ko lañ ko daan wooye ci tuuri cosaan yàgg kon ci bisub ajjuma ci la ko sëriñ bi feeñaloon joxe ko mu dëppoon ak juróomeelu fan ci weeru kori mel na itam ren yàlla dafa dogal mu dëppoowaat ak juróomeelu fan ci weeru koor wi ñu nekk itam ren euh, euh, jëm nag werd dañu xam ne mu ngi dugg ci buntu li ñuy tuddee tudd yàlla tudd yàlla nag dafa yaatu tudd yàlla moom dafa yaatu lool te doon lu kawe euh, buñ demee ci alxuraanu karim suñu borom ay aay yu bare bare bare bare bari yoo xam ne day day day digal jullit ñi ñu di ko tudd moom yàlla am foo xam ne day wax sax naan dee leen ma tudd ma di leen tudd wala nga ne dee leen ma fàttaliku ma di leen fàttaliku ndax it jëmmi tudd yàlla na nga xam ne dëgg dëgg dëgg dëgg li muy firi mooy fàttaliku yàlla loolu lay firi maanaam tudd yàlla dëgg dëgg li muy firi du tudd yàlla waaye fàttaliku yàlla loolu lay firi maanaam bu ma yoree sama kurus wala ma yoree sama jukkiwal alxuraan wala sama dolub xasida wala ma di ko def sama làmmiñ noonu rek di tudd yàlla dëgg-dëgg tudd gi li muy firi mooy may fàttaliku suñu borom di ko teewlu loolu lay firi daa tolloog nag fàttaliku ga moom ca anam ga gën a kawe ab dox lay doon bu nit di jéego di ci góorgóorlu ba yegg ca waaye du doon loo xam day jóg rek tëb daa di cay dem waaye day tàmmal làmmiñam mu takkoog turu yàlla ba dem ba mujj làmmiñ wi tàggatu ca loolu ba làggi ca ba dootu diis ci moom da koy yomb day jàppandi ci moom mu boole koog di tàggat xelam ak xolam ci di ko teewlu bu koy def loolu ci njëlbeen giitam day diis day metti moo tax nga gis ñu bari ñu la ko jàmbat man de maa ngi wirdu maa xuus wala maa ngi wirdu sàngam wala damay jàngal xuraan waaye daal teewlu daf maa jafe teewlu moom yombut waaye lu ñuy góorgóorlu la nànk-nànk boo demee ci alxikam bu ibnu ataillah as-Sakandari daf caa wax ne bokk na ci pexe seetaane loolu day ci jéem a yàqal nit daal di wax ne moo tax dëgg la dayo bu mag bañ bëgg nga yegg fa mooy nga yegg ci dayob booy tudd yàlla sa xol ne lapp ci suñu borom ba di si jóg jenn jamono du ko fay mu ko waaye loola yombut a gaaw a yegg kon moo tax ñàkk gi nga ko ñàkk man a man man a man a teewlu léegi ba na nga ko bëggee bu mu dox sa diggante nga ne kon gannaaw mënuma ko naa ko far baax ndax boo ko defee seytaane far la mu bëggoon ci yow man ko ndax seytaane woon li mu bëgg mooy fexe ba tàggalee ak tudd yàlla loolu la bëgg kon moo tax tudd yàlla dëgg-dëgg fàttaliku yàlla lay firi anam yi ñu koy defee nag yu bare bare bare la yooyu ma tudd léegi yëpp ci anam yi tudd yàlla bokk jàng alxuraan buñ ko doon wax sax dañ naan mooy faratay tudd yàlla ni ma koy nettalee damaa dégg benn borom xam-xam bu ñu xam ci réew mi oustaz Ahmad Dame Ndiaye hafizahullah mu wax ko muy wax ju am solo wax ne tudd yàlla bu doon am farata danga nga naan faratay tudd yàlla mooy jàng alxuraan wax na dëgg jàng alxuraan sunu bor Serigne Serigne Touba radiyallahu loolu la wax wa afdalu dikri kitaabullahi dafa wax ne tudd yàlla gi gën ci tudd yàlla yi mooy mooy jàngal xuraan ba noppi kon moo tax nga gis ci ca Masaalikul Jinaan ci buntu jàngal xuraan sëriñ ba ba mu cay wax dal ci kaw bu baax ñenn ci ñi nga xam ne dañu woote ak sufiyanke ba mu yóbbu leen seetaane jaxase seeni xel ñu mujj sàggane jàngal xuraan fonk seeni wërd jiital ko ba jàpp ne far wërd yee war naa mën a wutal xuraan wala ñoo xaw a yem sëriñ bi wax ne ñooñee seytaane rek leen war leen nax waaye lañ nekk dara du ca lu wér ndax alxuraan amul lu mën a tolloog moom kon jàng alxuraan mooy li ci jiitu bu jàllee nag yeneen xeet tudd yàlla yu yaatu la bu dee ci ñun ci suñ yoon wii yoonu Cheikhul Khadim radiyallahu anhu jàng xasiida ci tudd yàlla la bokk jëfandikoo wérdu maa xuus ci tudd yàlla la bokk jëfandikoo yeneen xeeti tur yàlla ak yeneen ak yeneen ci xeeti sikkar tudd yàlla la bokk ba ci sax ba xeetu saalihaat yi nga def ba jullee ba seen man ci tudd yàlla la bokk kon tudd yàlla dafa yaatu waaye nag ni mu yaatoo itam dafa doon loo xam dafa am ay niveau yu tolloowut moo tax bu dee ci wàllu tariqa suufiyanke yi moom toujours dafa bokk ci seen doxin faw ab tariqa day am wird woo xam ne moo koy jëmmal nga ne wird bi moom bu ñu doon naan kenn ab bi dañ wird bi doon kenn ab bi loolu moom tariqa suufiyanke yépp loolu lañ xam noonu la mas di doxee ndax ku mas di ñëw sax ba ci ba nga xamee ne tariixa sosoogut ba mel nii mu mel saxit ca lu yàgg a yàgg teewul li ñu tudda talqiin moom daa mas di am te loolu ma nga jo tàmbale woon ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci xadis nettal nañ xadis Shaddaad ibn Aws boobu ñu ne dañoo toog ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam cib néeg ñu toog ba ci ak yonente bi sallallahu alayhi ne leen ndax ab jàmbur nekku fi kenn raxu fi maanaam booba daa bëgg a wax ku bokk ci ñun ku dutub jullit wala ku bokk ci naafeq yi wala nangam ñu ne ko ñun rek fi nekk de mu ne nañ delloo bunt bi ñu delloo bunt bi tëj ko nee na yonente bi alayhi salaatu salaam daal di saleen baatub laa ilaha illallah saleen ko ci anam gu yéeme goo xam ne ku ne xam na loola mbir la ndax ñoom ñëpp wax laa ilaha illallah leen taxa dugg ci dugg ci diina ji te ba leen di wax loolu fekk na dugg nañ ci diina ji diir bu yàgg ba miin diina ji ba noppi ba nekk ca ba góorgóorlu ca waaye mu tëjaat bunt bi ber leen sawaat leen ko te ñoom ñëpp ñu xam ko manoon ko di ko defee nañ ko war a defee waaye mu leen ko sawaat mooy am na lu muy tegtale kon mooy am na lu mu bëggoon a dugalaat ci ñoom ñu tëj bunt bi mu sawaat leen ko wax le gëmm bëtam yëkkati kàddoom wax ko wax le ñoom ñëpp ñu gëmm seeni ba bët seen kàddu wax ko euh, sufiyanke yi moo tax it loolu musta ñàkk ba ca ña nga xamee ne ci kilifa tasawuf yàgg yi amuñu woon ay tarixa itam waaye tudd yàlla guñ daan sa seeni donga ma musta ñàkk am loolu musta ñàkk am kenn koo xam ne mas naa dem ci sëriñ jox ko boppam te talxiinu ko amul benn turu yàlla yu mu ko jox mu di ko jëfandikoo loolu naka jëkk daw dam kon ci loolu la la sun borom demee ba tariixa feeñ sun borom ci coobareem di jox ndigal yonent bi alayhi salaatu salaam muy indil lenn ci kilifa yu mag yi ay tariixa muy wërd yii ndax tariixa bu ñu ko waxee ci dëgg-dëgg faaw ñu xam ne dëgg dëgg dëgg bu ñuy wax tariixa wërd mooy li koy symboliser mooy li koy jëmmal léegi wirdu wi nag waaye day ànd ak ay sarta ki ay condition ki ay yëf yu bëree bëri yu ko accompagner bu ñu dajale loolu lépp mooy la ñu tudde ba bokkut ak nag li ñu tudde tarixa ñun comme waxiinu doomu aadama nga xam ne mbooloo lay lañ ciy jublu mbooloo mu ànd diw jiite leen ci yoon yàlla loolu moom tarixa la ci waxiin yi ñuy wax waaye bokkut ak li su fiyanke di tudde dëgg-dëgg tarixa moom bokkuñ ñaari bokkul la kon moo tax ci tarixa bu mën a doon jëfandikoo wirdo moom loolu lu mënta ñàkk lay doon bu ñëwee ci wir yoonu Cheikhul Khadim yi radiyallahu anhu sëriñ bi naka jekk euh, ba mu jógee ci géej gi lu jiitu muy dem ci géej gi sëñ Basiiru lim nett mu ci mënoon baaxal Khadim mooy ba muy wax ci diggante ña sëñ bi doon yar laata ca njëlbeen ga ca Mbàkke Kajoor ba ca Daaru Salaam ba ca Mbàkke ba Mbàkke Bawol Daaru ba ca Touba lu jiitu dem ci géej gi dafa xam ne booba ñi sëñ bi daan tërbiye taalibe yi ñaar lañ dañ daa ñi nga xam ne dañuy ñëw jox ko seen bopp ba noppi bàyyeekoo seen bopp des fi nga xam ne moom bis bu sat mu ngi teg ñoom bët di leen loo di leen dindiloo ak beneen kuréel bi nga xam ne dañuy joxe seen bopp ba noppi dem nga xam dañuy dem ak a ñëw di dem ak ñëw waaye desuñ fi dañuy dem di yëngatoo ko nekk seen yitte léeg-léeg ñu ñëw tëbbalu si sëñ bi barkeelu si moom siyaare ko demaat waaye ñooñu sax sëñ Basiru dafa wax ne sëñ bi dañ daan jox ay wér duñ daan jëfandikoo léegi sëñ bi nag bu fekkente ne ñi nga xam ne dañu dem ak ñëw sax jox na leen ay wér du ñu jëfandikoo kon asamaan ñi nga xam ne moom dañ fay des doon ay laxasaay ñoom ñooñu moom waxi nopp te lii loolu sëñ Basiru moo ko bindal jamono jooju sëñ bi ci tariq xaadiri la nekk te moo ko waxal boppam ci ay mbindam yuñ xam ñun ñëpp ñu gis ko booba tariq xaadiri boobu mu nekk wérdu xaadir ak awraad ya nekk ci biir tariqa ba yooyu leen daan jox gannaaw bi itam bi mu amee yeneen tariq yooyu des ci ndigal yam ko amoon mu daan nañ ko jox bi mu demee ci géej gi ba dellu si sëñ Mat Lamine Diop nattali ne gannaaw bi sëriñ bi jógee ci géej gi yor tarixa yoo yor werdu yooyu ko yonent bi alayhi salaatu joxe ci géej gi alayhi salaatu wasalaam nee na sëñ bi ku ñëw ci moom di jébalus ci moom te fekk yoroo woon benn gannaaw dane gannaaw bi nga xamee ne sëñ bi jot na werdu maxuus nee na ku ñëw ci moom te yoroo woon benn sëñ bi dalay jox werdu maxuus bu dee koo xam dafa yoroon beneen tarixa ci ya jiitu woon te xaj na doxoon na ci diggante bu yàgg wala nangam nee na sëñ bi mu lag-lag day jël ba ca tabam yoroon da koy jëlaat yeesalaatal ko ko waaye bu ko yeesalaatal danaan ko danga koy jëlaat nag ci ndigalul ne maa la ko jox tey loolu di lu am solo mooy ndax am na koo xam ne dox na ci xaadiriya wala saadiriya wala tijaan yi ay at ba jot na caa mos mos mosus lëf te sëriñ bi fi ne moom moo fi nekk nekk nekkaayub loola maanaam moom man na koo joxe na ko seeni borom doon joxe ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko joxoon moo ko jox kon moo tax du problème ci moom mu jox la xaadir ak chaadir yi wala tijaan yi wala mu jox la wërdu maaxus ñoo yem ci moom ndax yëpp ay bagaasam la yu ñu ko jox moo ko yor sañ na ci jëfandikoo bu ci nee na ko soobee kon moom du problème ci moom mu lay jox bi wala mu lay jox bi ndax bu mu la ci jox rek yëfama yow mi mi jox yow bu la jox rek moom nga war a xënte woo sa wurtu nekk ci beneen ndax yow amook tànn moom moo xam li ëpp solo ci yow te damay wax ne foofu lu ma ta xam mooy baat boobu sëñ Mat Lamin di wax daa am lu mu jëmmal loolu mu wax ne sëñ bi dalay wax ne la da koy wéyal waaye ci ndigalul ne ci man nga ko jëlee ci yéenee ne ci man nga ko jëlee sëñ Tuubaa li ñu tuddee xasu du ko def maanaam ay waxam foo ko fekk ci mbindam ak waxam ak léppam baat par baat amul benn baat boo mën a génn ci waxam te doo am doo am jeexit ci la mu wax maanaam ndax baat bu ñu wax da koy tànn baat bi boo ko seppee rek li mu doon wax dootu firi li mu bëgg a wax ndax ay wax ay waxam da koy tànn kon moo tax bu ne ci yéenee ne ci man nga ko jële mooy ne léegi day woon léegi rupture am na mooy yow Sëñ Mbàkke démb ba ngay ñëw ab xaajir nga woon yoroon wirdu xaajir jëfandikoo ko ay at amoon ci ndigal amoon ci nangam tey jii bi nga ñëwee même suba wirdu wa nga yoroon démb ngay wéy di ko jël jëfandikoo suba itam waaye nag jëfandikoo wootoo ko ci yéene ja ko doon jëfandikoo demb ndax yëmb yaa ngi ko doon jëfandikoo ci yéene yi aju ci tariixa Cheikh Abdou Khadre di ca tëbbuloo te yaa ko yor ci yéenay aju Cheikhul Khadim radiyallahu anhu di ci di ci moom te it yaa ngi ko yore ci geneen càllala gu bokkut ak càllala ga ko yore woon te càllala daa am jeexit càllala ga nga ko amee woon démb càllala gu jaaroon ci ay kilifa la ba yegg Cheikh Abdou Khadir Jilani jóge ci yonent bi alayhi salaam tey càllala gi nga ko yore tey Cheikhul Khadim la di sëñ Tuubaa di yonent bi alayhi salaam kon loolu am na am na am na jeexit ju ju muy ju muy ju muy wane ni itam. Euh, faw ñu xam ne euh, loolu euh, caalala googu ma wax dafa am solo ndax caalalu gàtt gi caalalu gàtt gi dafa am jeexit moom it loolu yi doonaat beneen mbir mu am solo ci wér du maaxuus wi ñu Sëñ Tuubaa indil loolu lu ñu tuddee uluwu sanat mooy caalalu gàtt boroom xam-xam yeeg nit yàlla yi boo gisee ñu daan def léeg-léeg nit jël tariixa ci diw ba noppi déggaat ñu ne sëñ diw sàngam wala mu xaddam diw sàngam ci dëkk sàngam am na ko ci silsila bu gën a gàtt mu jaral la takk say bagaas laxas dem wutali ko di fanaan ak yendu ci àll ba yegg ca moom ngir tëbbul jëlaat ci moom dara dawu ko tax lu weesu ngir bëgg am càllalu gën a gàtt càllala googu nag sëñ bi moom li ko sëñ Tuubaa li ko suñ borom defal loolu ci jamono moom gisee su ko fenn mooy moom la rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax Cheikh Sidi Ahmad Mismo wax na ne sëriñ bi daana leen ko wax ne leen lam yatuli sanadu lan yat lam yatuli sanadu bay na bay na ko bay na lam yatuli sanadu nu mu ko waxeeti lam yatuli sanadu bay na ko bay na rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam innama ana wax wahdi maanaam seen càll la bi leen jokkaleeg yonent bi alayhi salaam guddut ndax menn man dog maa fi dox menn man dog maa fi dox loolu doon loo xam ne solo si day feeñ ba suñ jamono jii ba fii mu koy waxee toujours ni ma koy waxee ne ba léegi bu la soobee yow sëñ Mbàkke mii di dund ci deux mille vingt deux bu la soobee sa càlla la sa digg ak yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ñetti nit a fi dox bu la soobee suba suba ndax boo demee sëñ Muntaxa mais mu jox la ko sa digg ak yonent bi aleyhi salaatu wa salaam fi dox sëñ Muntaxa la sëñ Basiiru Cheikhul Xadim boo demee ci commune sëñ Mudu Maamun Ñang ba tey sëñ Mudu Maamun Ñang lay doon Cheikh Mahamadou Lamine Diop Dagana Cheikhul Xadim yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ak ñi nga xam ne am nañ càllal yu mel noonu yëpp boo demee Mauritanie Cheikh Sidi Ahmed Cheikh Mouhamadou ibn Ahmed Misk ñett ba tey Cheikh Mouhamadou Ahmed Misk Cheikh Sidi Ahmed Mismahu Cheikhul Khadim Rasulullahi sallallahu alayhi la sallam kon lii càllala gu gàtt gàtt la te càllala gi ku ne xam na ne am na jeexit ju mu am loolu xaj na waxtu wi duñu ko may ndax xaw naa euh, xaw nañoo sori sax ci waxtu yu ñu waroon am waaye càllala gi moom ku ne xam ne jeexit ju mu am ak li muy def ndax lu mu gën a gàtt gën a am doole. li muy tëbb nit itam gën a am kàttan gën a euh, mën a def jeexit ci moom kon daal xam naa li ñu tëjee rek mooy ñu xam ne tudd yàlla moom ni ko sëriñ bi waxee wax ne am amma dawaamu dikri fa huwa akbaru min kulli kaanal kaana al murid yuksiru sax saxal tudd saxoo tudd yàlla mooy li gën a màgg ci lépp lu ab ku sóobu yoon yàlla di baril lépp loo xam ne donga bi sóobu yoon yàlla mi ngi koy baril di ci góorgóorlu saxoo tudd yàlla moo ci gën a màgg yemut ak lenn ndax day jeexital ci xolum nit ki day jeexital ci moom wax fa ne itam ne euh, nu mu ko waxeeti béy ba maanaam mooy dafa wax ne dundub donga buy sóobu yoon yàlla ab taalibe ab dundam mooy saxal tudd yàlla mooy ab dundam maanaam ni ñam di def ci yaramu nit nga xam ne nit mënut di ñàkk di mosu ñam mu néew mu bari waaye mënu ko ñàkk def ngir yaram wi di dund di fi nekk niki noonu itam taalib bi soobu yoon yàlla ruuxam ngir mu fi nekk di dund mun ta ñàkk muy bari lu muy tudd yàlla lu muy bari lu muy tudd yàlla lu mu koy gën di bari lu mu koy sellal lu mu koy teg fa mu ko war a noonu lay dunde noonu lay màgge ci diggam ak boromam kon moo tax lu mat a yitte wala lu mat a sonne la jamono nag toll na foo xam ne nit ñi ñu bari daw nañ jëm ci bëgg bëgg yàlla ak bëgg lu baax tax ñu soobu ci foo dem da gis ay nit di wuti kurus di wérd di def nangam di def nangam ñu leen di jàngaloo ay yëf di def ay yëf lépp ngir bëgg lu baax ak bëgg yàlla rek waaye li ma ci mat di jàpp ne daal mat na ci bàyyi xel mooy euh, bëgg lu baax ak bëgg yàlla lu war la waaye bu ko nit ki na ko defee ci xam ndax sëriñ bi daa wax ne ca Maghâlikoun Nirân jëf faw xam da ko war a jiitu ndax jëpp jëf ju xam jiitu wut bu ko borom xamee bu ko xamut faw ab ab rax dana ca am maanaam dana am lu ca yàqu rax ca te du xam ne yàqu euh, lu ko lu ko lu ko yàq rax na te du xam kon moo tax loolu lu mat a sëdd la lu mat a bàyyi xel la li nga xam ne daal lu assuré la lu wóor la te lu leer la doon tudd yàlla goo xam ne du jël ci yow temps bu bari nga mën koo def suba def ko ngoon mën a wax ne li nga ko def ci bis bi lépp boo ko xoolee mën naa am du mat sax ci yow ñaar waxtoo genn wàll du ko mat te doon lu assuré loo xam ne kenn du ma a gis nit ku ko jëfandikoo ca sart yaag na mu war a doxe lu may ne dana def jeexit ci moom ci comportement am def jeexit ci moom ci ruuxam def jeexit ci moom ci jikkoom def jeexit ci moom ci melokaanam def jeexit ci moom ba ci sax yu bari rek yoo xam ne sax bëgguma ko tudd waaye adduna jii nit ñi sax mën naa def jeexit ci moom ci am ami addunaam euh, doon lu assuré lu lu lu lu luñ sécurisé itam loo xam ne loru ci yombut li fekk ni kaa ngay tënku ci sart yeeg nam ci war a tënkoo doo gis mukk ku ne la doon jëfandikoo wér maaxus jëfandikoo ko nam ko war jëfandikoo ba noppi nga xëy mukk ñu ne la lii dal na ko wala laa dal na ko te loolaa ko teg doo gis ma ko waaye jàmm rek lay doon euh, bari na sax ñu bari ñoo xam ñoo xam ne dañ lay wax ne la yuñ doon jànkoonteel ci ay mbiri jafe-jafe yi ay àndandoo kii yeneen yëf yeeg yuñ doon ragal ak ay yeneen ak yeneen yuñ mën tudd gis nañu bañ tàmbalee jëfandikoo wér du ab diir yooyu yëpp daa jekk-jekk tàggoog ñoom kon moo tax lu mat a sonne la lu mat a jox yitte la te xam ne it ci jamono ji ñu toll lu mel na moom ci góoraay amut lu mel nag moom ci wóoraay lu mel na moom it ci jeexit ci jeexit ju foor ju mu am ci nit yombut loolu moom xaj na day tolloog li ma koy faral di waxe dama naan léeg-léeg sax ku koy jël léeg-léeg du mën a ñàkk ganaaw nit kuy dugg ci mbir faaw nga wax ko loo teg ci loxoom waaye dama naan wérdu yi sax moom li ci nekk ci jeexit fi ne ci dëgg-dëgg mënoo ko wax nit ki ndax ku nekk bu ko mosalee boppam ab diir moo ciy gisal boppam ay jeexit boppam yoo xam ne mën naa am du bokk ak yakaneen gis sax kon moo tax lu mat a jox yitte la te fonkat a euh, boole ko ci li ñu liggéeyal Cheikhul Khadim radiyallahu anhu kon ñu tënk foofu di jéglu ñëpp di santaat alxadimiya ci taxawaayu rafet yi ñu taxaw ci li ñu fàttali date boom solo bi jar at mu nekk di ci jéem a def ay waxtaan itam ngir di ko fàttali di ñaan sunu borom mu defal ñu tawfeex te ubbi bopp ñëpp itam ba yittewoo giñ ko gi ñu war a am ci wérdu wi ñu gën koo am euh, safoo giñ ci war a am ñu gën koo am ci di ko jël te di ko jëlee nañ ko war a jëlee te di ko jëfandikoo te di jéem a góorgóorlu ci tënku ci sart yi suñ kam kattan ñaan suñ borom mu defal ñu nangu ñun ñëpp te may ñu fekk waat ko yaa di bëree bëri te maa ndëgg góor ak tal ci barkeb Cheikhul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. اكتب لمن أحد وردي مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم يا ربي اجعل المريدين معا في حسنك الحصين والشمل اجمعا